E mbokk yi ñu ngi ak ci Moussa kenn dootu ko présenté ah man moom dootu ma ko présenté sama bopp c'est un frère c'est un ami Sen TV ak leneen leneen lu ñu sëg alors ci gannaaw bi ma la nuyoo ba pare tey bés bu rëy la diggante Gora Sock fils de Balla ñoom ñaar dañu méngoo ci taille ak ci poids muy combat boo xam ne combat clarification la combat règlement de compte nooy jàngatee ci combat bi premièrement seen physique ñoom ñaar. Ah, merci Pape Maguette ma ngi am contentement ak mbégte bu baax di la fekkaat fi ci arène national di bokk ak yow liggéey bi mu rafet saa su ne mu doon tey benn avant-dernière journée boo xam ne ci euh, saison bi mu doon combat entre Gora Sock ak Fils de Balla mu doon ñaari naataangoo yoo xam ne dañu tolloo ci taxawaay tolloo ci ci ci ci maanaam ci wàllu entraînement ak ci wàllu bëre. bu ñuy xëccoonte da nga naan cinquante cinquante wala nga naan quarante neuf cinquante euh, quarante neuf cinquante et pour cent avantage yi du bëri ci kii ak kële tuuti le rawante rek parce que ay naataangoo lañ. alors tey ku ci nekk lan mooy sa avantage côté Fils de Balla lan mooy avantage. côté Fils de Balla avantage mooy mu indi bëre bi mu daan indi ak jàpp bëre boobu nga xam ne moom lañ ko xamee bu dee góor a la mën nañ ne xeex biñ ko xamee woon moom it am na bëre daan xeex di bëre. donc njëkkante le ñoom ñaar kenn ku nekk rek si li nga gën a fort sa morom bu la si njëkkee rek da am difficulté. mais ci bëre bi bu ñu xoolee a Sock mbapat kat la ah dañ koy gis si mbapat yi lu bari est-ce que Fils sa Balla dina am chance bu bëri ci jàppante bëre bi. waaw foofu la foofu la quoi bi nekk parce que boo xoolee xeex bi foo xoolee ñoom ñaar xeex bi. dina peut-être dina parti un peu toujours en favori mais bu ñëwee ci bëre bi day doon cinquante cinquante xam nga mbër boo xam ne dafa mën a xeex di di xeex di bëre day naxaree day naxaree canaliser donc ñoom ñaar moo njëkkante la ki ëpp atu ak ki am calcul sa for fi mu nekk nga xamante ne bu fekkee dóor nga am bunt da ngay taw tee wala bu fekkente ne dóor boo xamante ne day porté mën na kaaw bu kaawee dëbbu nga mën ko achever donc ñoom ñaar calculer ak njëkkante si seen si seen diggante. mais tamit doole gi ak si taxawaay bi dañ see neexoon. non dañoo neexoon trop ay naataangoo dëgg lañ. ci wàllu ci wàllu taxawaay ak ci wàllu kattan léegi nag lamb ji mooy déterminé kat moo gën a baax physiquement ki ëpp coffre kat la deuxième soufflam di njëkk génn kat moo gën a endurant kat moo gën a résistant loolu lépp bu bi di gën a enduré wu daf ciy joué. Ah, seetaan nañ fi benn combat Gris Bordeaux Balla Gaye Balla Gaye am na ñaari combat yoo xam ne komba yu am importance diggante moom ak Boy ñaar diggante moom ak Eumeu Sène maanaam deux combats biir Pikine te ku xam Balla Gaye ak waa Pikine surtout Eumeu Sène bi ko daan ñaari yoon. muy troisième confrontation booy Niang bi ko yàgg laaj bëgg a bëre moom muy benn xale bu war a dem tey Balla bu ñu ko gisee ak critique yi ñu gis si moom lan la war a defaroo pour mën a gën a taxaw gën a am assise diggante moom ak booy Niang mais Balla am na loo xam ne duñ ko ko wax sax moom xam na ko gis na li mu bëre keroog ci combat bi mu bëre moo Gris Bordeaux mu doon combat boo xamante ne dafa résistant dafa endurant combat bi dafa tiré en longueur te gis na ni loolu bu ko continuer di bëre il faut mu continuer di entraîner entraînement am lay gën a continuer moom xam na ni li mu bëre keroog combat technique la combat tactique la combat endurance combat physique la donc li ma koy conseillé te mu ngi ci sax te bu amuloon loolu du yegsi fii xam nga gars yi li ñu war a bàyyi mooy mbëri entraîné wuñ wala dañoo jeexal jeexaluñ peut-être mën nañ na dañu entraînement bi mu amoon bi muy am dix-huit ans dix-neuf ans vingt ak léegi est-ce que mën na ci dellu est-ce que mën na ci nekkaat entraînement bu oos boobu mbapat di contact ba say nopp kotomu di di contact par trente mbër taxaw boo tër dem ci beneen boo tër dem ci beneen loolu mooy li nga xamante ne su ma ko doon conseil mu delluwaat ci ay trois séances am gën a endurant gën a entraîné waat mais il n'a pas il a du mérite boo xoolee combat bi ak doole la indi technique la indi parce que dem na ba xam ne xeex bi ak jàpp jàppante rek moo fi des bi mu duggee si jàppante bi il a fait mu daan ci Gris ci anam bu bu bu doy waar. pour mu liggéey liggéey bu intense ñaata weer la ko war a liggéey wala ñaata semaine pour mu taxawaat gën a taxaw physiquement. non du lu jafe sa dépend ci encadrement am ak ñu ko wër il faut ko mu def programme bi nga xamante ne su ma doon ñoom la day def du HIIT high intensity interval training des intervalles à haute intensité par intervalle yoo xam ne da koy permettre poids bi physique bi day attan loolu mbër dina entraîné ba taxaw ba os mais kaw dafa metti ñaari cent cent vingt kilos. ñu tasee pap ba nar a rungum daje rek ñu bari dañ naan entraîné wu fekk entraîné nañ contact moo métti il faut gaa xam ni contact dafa métti yombul te entraînement dafa métti dafa métti il faut gaa yi bàyyi ci xel donc moom li mu war def pour six à huit semaines jëm deux mois yoo xam ne métti na xool wàllu alimentation une alimentation saine et équilibrée boo xam ne day ànd ak récupération lolu liggéey liggéey bi mu am bi mu doon def avant bu metti bi mu nekk ni mu continuer ko xam nga moo Gris Bordeaux bay passé indi woon na lu mel noonu bi muy wàcc taseeg Modou Lo ñu naan jeexal na jeexalu jeexalul fekkante ne boobu moog Modou Lo ah, ñëpp jaakaaroon ne Balla jeexal na fekk am na lu mu dencoon bi mu ñëw moog Modou gis nga bëre ba ni mu demee ci bëre ba ci xeex ba ci doole bi donc loolu bu ko continuer rek lépp lu mu ñàkkoon ci làmb mën na ko téewaat vraiment c'est un champion il il il a il a looy jàngat ci moom lan mooy ëllëgu la Gris Bordeaux attaqué na koñe na mais il a perdu comme il a dit attaqué na koñe na bëri na xeex na mais comme ni wax dëgg la KO knock out KO mooy knock out en général scientifique yi dañuy wax ne cinq secondes la Balla il est intelligent bi ko Gris atteindre dafa reculer di ko xool ba retrouver waat ay mu ngi récupéré sensation bi récupéré ba xam fi muy xool mbër bu bëri technique la bëri calcul la bi mu récupéré ba xoolaat tegaat lamb ji ci axe xam ne kii du ma continuer xeex bi da koy woo ci xeex bu dëgguwul bi mu appelé xeex de décroché coup bi mu wàcc dóor bëtu oomam ci suuf daw dugal loxo bi sëq ci suufu geñoom eh, ci ngemb bi parce que bu fekkoon dafa des ci centre de gravité am taxaw ci ay genoux am Gris sa ay dóoree ni muy dóoree mën na la laal parce que buy dóor crochet long wala crochet court da koy nat ci visage bi soo sëgee da lay dal ci front boo sigee dalay lay dal ci menton Balla loolu la xam moo tax mu dóor bëtu oomam ci suuf wàcc complètement bëre ak moom bëre suuf parce que da ko mën def njaabu góor la daw téye ci suuf ngembali. dafa rëpp. non rëppul moom moo ko def exprès xam na ne bu wàccee day jël giri te giri ak poids bi mu amoon centre de gravité bi dafa déséquilibré wu. poids bi yëpp dafa ñëw moo tax Balla bi mu ko téye di def 360 ak moom samp baaraamu baaraam bu mag bi ci suuf di tourner ak moom dafa def ñaari pas ngadd épaule bi mu déséquilibré wu mu lem ko donc giri il n'a pas démérité bëri na. def na li mu waroon def. il peut continuer wala jeexal mën na jeexalagul. Gris Bordeaux li mu bëreeg Balla Gaye beneen mbër bu mu doonoon bu dul Balla gay keroog bi mu la dóoree ngay pare Balla nag bon c'est un lutteur ñoom ñaa ngi nañ li mu leen di conseil rek mooy ñu gën sax ci entraînement li père Maxi wax ma àbb ko ko mbër du préparé mbër dafay pare sa liggéey la soo xëyee dem entraîner dem salle bu ngoonee nga dem contact. entraînement boobu des seeram mais nga bàyyi ba am combat di soog a entraîné loolu amul sens nañu gën a delluwaat seen entraînement habituel ñu ñu ñu ñu ñu assidu ñu ponctuel ñu régulier ci li ñuy def loolu moo leen di permettre ñu nekk ci nga xam ne da ngay nekk un compétiteur Gris Bordeaux boo xoolee ñàkk compétition daan na ko ci combat bi. manque de repère dafay manque de loo nekk nekk champion automatisme voilà automatisme motricité vivacité boobu moo waroon am ñàkk compétition yi moo ko moo ko indi te Balla boo xoolee wax dëgg yàlla mbër la bu am sañ-sañ Balla Gaye fa am loo xam ne ci mbër mbër bu ko mënti am rek même boo nekkee ci mefoor méforme gaynde gu blessé day naqaree ba li wax gaynde bu blessé woo day gën a am doole et c'est un fin lutteur boo xamante ne bu taxawee ci làmb pour nga daan ko il faut nga doon mbër Balla Gaye pour nga daan ko il faut nga doon mbër bu téeña mbër boo xam ne am sañ-sañ bu ëpp bosam te pour nga ëpp ko sañ-sañ ci làmb dina jafe trop Balla pour mbër ëpp ko sañ-sañ ci làmb day jafe parce que passion lay demee day xool man li ma gën a ne ni mu jëlee kaaw bëre ba pare mu résister déplacement latéral reculé ñaari pas en taxaw def un mètre parce que Gris Bordeaux du ñëw mais bi muy génn daf ko yóbbante ay coups yoo xamante ne Gris dafay taxaw aussi daf ko bloqué il l'a permis mu mën a récupérer souffler bu baax doog a demaat ci ci moom. donc ils ont du mérite ñoom ñaar ñëpp mais félicitations à Balla Gaye et du courage à Gris Bordeaux bu mu bàyyi.